ma jigéen euh, port nga dugg tey. waaw fa dugg tey ndax coow li bari na fa lool euh, ginnaaw nag syndicat yi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ca biir port euh, defoon nañu nag ab genre porte presse wax li nga xamante ne ni moom la DG bu yees bi di Waly Diouf Bodian def ci boobule port jëm nag ci ñaari mbir benn bi nag dañu ne ci ab audit. fichier boo xamante ne ni personnel la bu port bu autonome de Dakar ñuy wax ne Euh, leneen li ci topp mooy que ni 700 personnes yu nga xamante ne nii dañ leen a suspendre ñu doon nekk di nekk ay liggéeykat euh, foofu ca biir port looloo waral itam ñoom ñi nga xamante ne nii ñoo di direction bi daal di génn daal di euh, weddi wax ja ba mu set wecc ginnaaw bi loolu nag ñenn ñu bëri ku ci mel ni père Bekaay Mbaye moom itam ñaawlu na ko nee na nag mënuñu nemmeeku ay nit yu nga xamante ne nii dañoo amoon seen xëy di xëy ñu xëy xëy bëgg leen a dàq noonu. ko defee rek dana am lu mu daal di jur ci biir réew mi ci dellu te ginnaaw ndax ñooñu dañoo yoroon seen i kër yor seen i dépense di ko dawal mu nekk loo xamante ne nii daal. Seydina Omar euh, ginnaaw bi coow li amee ñoom po génne nañ ab communiqué wax ne li nga xamante ne ni ñoo di syndicat yi nekk euh, ci biir port ni ñu waxee mbir yi demeewu nii exactement. waaw xam ne benn mbar mbir dafa am euh, ni ko Waly defe démb damay dégg ministre communication bi ko Pape Alé daralee RTS mu wax loo xam ne ñu bari jàppoon nañ ko mais xamuñu woon ni egg na foofu bu nee la post par exemple bu mu waxee masse salariale poste wax presque 18 milliards ci en bi ci yoo xam ne masse bu post la yamul foofu mu ni la 3500 travailleurs ñoo fa ne foo xam ne 1500 rek ñoo fa waroon ne mm. maanaam jël nañ mille wala lu ëpp mille cinq cent travailleurs yoo xam ne. biir poste maanaam emploi kii la recrutement abusif wala recrutement politique wala politicien pas temporaire. Hmm. maa xam man ñoo xam ne jël na leen te doyewu leen dara. maanaam foo xam ne mille cinq cent moo fa waroon ne nga am fa trois mille cinq cent mais yeneen deux mille yi nan la leen di fayee loolu lépp kër gi moom moo koy gàddu. Hmm. mais loolu mënul continuer même bu doon nguuru Macky Sall moo ko def nguur gu mënul continuer di doxee noonu parce que ñoom li ñu woote moo tax mooy. jub jubal jub jubal jubanti loolu nag ñu fekk fee poor loolu lañ fe loolu ñu fekk poste loolu lañ fekk port waali na port doon doxe ci Cheikh Kanté doon ko doxe ci bu mujj mais mënul kon ne di doxe noonu mais boo ñëwee di nga càmbar def état des lieux xool ñiy xëy ci lan la ñuy xëy parce que bu am na ci ñoo xam ne tey jii mën nga làmb sax ni amoon nañ fa contrat mais am ñoo xam ne xamoo leen ay contrat lañu signé te xam ñun ko signal parce que li ma naan bërëbu liggéeykaay ñett fa ne ñii xëy si ñii liggéey si ak ñii fayeeku si mais am ñoo xam ne dañuy fayeeku ci rek mais am ñoo xam ñi ngi leen di fay sax te xamuñu leen loolu ci poste kan la jëm kon li wax ci aide à la presse bi 800 million xam ne kenn xamul ci yan poste la dugg mais loolu daf fi bëri léegi nag bépp directeur bu am fit boo ñëwee moom di nga song loolu xeex ak loolu dama waxtaan ak benn waaye bi liggéey poor yàgg na fa mu ne moom man waali laa àndal maanaam ci coalition Diomaye la bokk mais man mosuma am CDI man koo tax mun a parce que ni muy demee la parce que liggéey munoo liggéey 12 mois sur 12 boo xoolee CDD yi di di di yàgg mu ne dafa am entreprise yoo xam ne noonu lay doxe expliqué na ma daal benn bi sax nee naa ko ñëwul ñu invité la pour que ñu comprendre lan moo xew port dëgg-dëgg peut-être mun na am am na lu ko tee hmm. di nga nag loolu ñoom bekkaay di wax ni di jooy mag mu loolu di jooy moo xam la muy jooy loolu olof yi wax daf yow mi tey doo jooy man mi tey du ma jooy malgré que buñ sañoon am ñu am. lu ëpp li ñu am mais dañuy dundee suñu ñàkk moo tax Sénégal daf ci am ñoo xam ne lijjanti lañ daan dundee maanaam lijjanti liñ am yëpp ci lijjanti la ko amee loolu tax ñi ñi daan liggéey normalement jooyuñu ñoom dañoo jàppale lu normal mooy am ni mais daf ci am ñoo xam ne pour ñoom affaire yi normal nu muy doxee ni parce que ñoom ni ñu doon doxee normalul dañ doon dund ci lijjanti dem poste lijjanti fa un million dem port lijjanti fa un million mhm. dem beneen fi lijjanti million ci loolu lañ toogoon léegi nag buntu yooyu bu xëjee xëyee tëj mais ñooñu il faut ñu yuuxu ñooñu il faut ñu jooy mais ñu doon liggéey ko dégg mi jàmbat rek jamono yi ci 4 mois yi mooy lijjantikat yi ñi daan jot loo xam ne ñaxuñu ko ñi daan jël àqu jàmbur ñu leen koy jox ministère bu ne ñu dugg fa am lu mu fa lijjanti mais ñooñu tey ñu yuuxu naan doxul nan am yërmande nan social social mën réew la doxal ci àddina bi mais réew développement moo koy doxal te développement ci jub lañ mooy ñu fexe ba alal ji ñi koy fayeku mu doon ñu koy liggéey boo gisee ñu naan investissement maanaam li ngay def ci liggéeykat bi liggéeykat bi da koy delluwaat entreprise bi pour bu weer dee moom mën ko di ko xaar mais yow loolu liggéeyul nan nga mën a taxaw di ko xaaree. Mm-hmm. loolu tax coow li nii dina gën a bari parce que ñi ëpp ci sénégalais yi daawuñu liggéey dañ daan lijjanti pourtant ñi ngeeg seen i karkat ñi ngeeg seen i kër yi baax ñi ngi lépp mais ñu doon liggéey normalement ba tey ji lan doon jot ñu ngi koy jot te yam ca di yaakaar ni ëllëg mën na yokk bu réew mi gënee neex. d'accord mais fi mu ne liggéeykat yu lijjantikat yu ñoo yuuxu. <laughs> te dinañ gën a yuuxu maa la ko wax di di nga gis nit toog ci télé xaaju toog ci rajo internet xaaju dakkagul te day continuer parce que ñi ëppoon ci ñoom dañ daan lijjanti. d'accord waaw daaw ñu liggéey. na solo bàyyi sa yow sant yàlla rek ndax nit it bu fekkee dénk nañ la poste boo ñëwee war ngaa xool kër gën a mi doxee nga xool la nga sa mën a jubbanti wante nag ñi nga xamante ni ay emploi lañ te yàgg fa mu leer na ñi dañoo ñëw dañ leen faa jël pour ñu liggéey pour port ñu ki leen du jël xool ba xam ne kat poste yi ñu war a mën a joxe la liggéey buy dox ay la yéwén ñooña moom mënuñu lu dul buñ leen mënta yokkal seen salaire ñu baleen noonu mais nag bu fekkee dafa am ñoo xam ne dañ leen jëloon pour politique wala am ñoo xam ne dañoo dem bay jeexal doog leen a jël su boobaa ñooña moom mën nañ leen a arrêté waxtaanaat ak ñoom ak nag waaye nag jekki-jekki nag xawoon ni lii kat kër gi atunu ko nañ leen wàññi loolu moom day xaw a metti day xawa a metti tey jii kër bu ñu la ko dénkee kër gi di génne fukki junni nga daal di ñëw ni normalement kër gi war nañ mën a génne fanweeri junni lu ko mën tee génne fanweeri junni ñu ni employé bari ñu ni kon est ce que duñu wàññi employé yi ndax muy génne fanweeri junni fanweeri junni yooyu bu ko génnee ci askan wi la jëmaat kon nag ña fa jot a nekk nga xooloon sax bu ko jaree nga wàññi seen salaire ñooña nangoo yow it nga wàññi sa salaire nga wàññi sa salaire wàññi seen salaire te bàyyi employé ñu dem day daal di tane mais nag bu la leeree ne ñii nga xamante ni dugalaat nañ leen fi ginnaaw bi dañ leen fee dugal pour politique wala dañ leen fee dugal pour yàq kër gi su boobaa mën nga yéen a arrêté ñu waxtaan suñu waxtaanee buñ ko jaree nga jël leen leen si kër gi en tout cas man li ma moo ñu waxtaan ndax it bu fekkee ne li ñu wax noonu la sept cent personnes yëpp bu dee ñu ngi dund sept cent personnes yëpp bu dee daanañ xëy si sol seen tëni ñooñu moom mënuñu lu ñu ñu xool nuñ leen jàppalee bañ continuer seen liggéey bu ko jaree sax ñu génn wàññi leen foofa dugal laal leen si yeneen liggéeyukaay ñu mën a liggéey pour lu ñu yóbbu seen njaboot bu dee nag sept cent personnes yi xaaj bi seeni kër la ñuy tëdd di nelaw ay conseil lañ wala ay charge sa mission wala ay nangam ak nangam ay la yeween su boobaa nag mën ngeen a écarté. léegi noo jàngatee waxu père Bekaay bi. non waxu père Bekaay bi xam naa ne sax dinañ si ñëw ndax man ñoom ñoom Mourou ñoo ma ko jox. Mm. si victime bi. Ah biñ ko def waaw. Mm, mais xam naa après incha allah ñoom bu ñu ñëwee dinañ ko gën a leeral. ba mu leeral incha allah <laughs> ndax yi fa nekk moom daal àddu nañ ci wax ne daal mbiri ni mu demee. doy na waa te yéeme. Waly Diouf euh, Bodian moom euh, man suivre naa ko semaine bi ci fin de semaine. Mhm. ma gis mu ci apporte ay éclairage maa ngi ko dégg mu naan. Euh, mission d'audit moo nekk ci biir kër gi. Mhm, mhm. te nee na des contrats yoo xamante ni échéance bi dafa jeex waa ñii di liyaarante mbaa jàmm la. ñëw weer. <laughs> moom la kiy def di moo ma jaaxal waaw après ñu lijjanti ko ñu xoole ko yeneen angle garaawul <laughs> ay waar ak léegi léegi euh, ma jigéen bu fekkee ni ay contrat moo tax gis nga euh, respecter li li code du travail wax dafa baax mm-hmm. parce que man mënuma nekk ci kër des années durant ñu may defal ay cd yu dul jeex te mu am app ci ci ci ci boo demee inspection du travail dañ la koy xamal ak nan la contrat yi di évoluer donc nee na dafa fekk ay contrat yoo xamante ne échéance bi dafa jeex mhm. nee na dàq ñu kenn dañoo renouveler wul contrat yi mhm. parce que mission d'audit dafa nekk mission d'audit du personnel nee na dafa nekk ci biir kër ga donc nee na mënuñu di renouveler ay contrat yoo xamante ni ñu ngi auditer personnel bi et loolu aussi dañ koy nangu parce que balaa ngay demee euh, na nee na sinon am na 170 euh, contrat yoo xamante ni bu nu paree. dinañ koo xool signé ko yooyu. mais nag wax dëgg yàlla yaa a des emplois fictifs yoo xamante ni aussi. Euh, doo gis nit ki nii rien wu dee rek doo ko sax gis da ngay dem rek fayeeku yooyu aussi il est temps que mu jeex biir Sénégal parce que golo di bay baabun di dundee moom ndax dëgg yàlla war na fee jeex pour moomu li muy généré ci xaalis bari na trop waaye Père Bekaay nee na dañoo war a social waa loolu xalaatam la waaw. alaaji noo jàngatee la xew ci port am na na gars yi ne warul yam rek ci port. waa côté B hmm? waa côté B nee nañ li def du yoon. Hmm. waa xam nga pare na saa yi boo nekkee ci jàdd yoon ba chronique ci mën ngaa dem ba defe ne yoon la te fekk ne jàdd yoon la. réew mi nag wax dëgg fa yàlla ku xool ni mu doon doxee nga xam ni réew mi ci jaaxaan lañ nekkoon. Hmm. moo tax yuuxu yi dina gën a bari. social la. yuuxu yi jeexagut day doog a tàmbali mais fu ne nit dina fa yuuxoo. Hmm. ah parce que réew mi tëddee woon noonu réew mi réew mi li Omar wax sànq loolu mooy réew mi lijjanti. <laughs> mais du woon réewu liggéey. xaalis kenn ko liggéey da koy lijjanti. xam nga réew mi nag ñoom ñoo woote ne léegi dañoo bëgg réew mi doon réewu liggéey ñi ko voté mooy cinquante nangam pour cent yi nga xam ni ñoom ñoo ko voté ñooñu ñooy majorité bi nga xamante ni bi ñoom ñoo bëgg réew mi tegu ci njub minorité bi nga xamante ni bi ñoo fi doon nekk. di doxalee ni nga xamante ne bii noonu la ñuy doxalee la fi nekkoon gën xoolal rek seen doxalin parce que tey ñi naan ay ya démbum pourtant daawuñ ñu wax sax massa te tey ñoom ñooy yuuxu naan ay lu tax ñuy yuuxu naan ay ya te démb ñu mënoon ñoo wax massa te waxuñ ko loolu yeneen mbir la yoo xamante ni bi yu ñu war a teg ci caa taabal ji la xam nga dàq ñu ne arrêté nañ ñii balaa nga ciy wax danga nga war a lijjanti lu tax ñu arrêté leen comprendre mm-hmm. mais doo dégg téll rek ne damm na parce que arrêté nañ Assane bu dee ku maanu nga doone rek waaye Assane Mesere borom kër la vraiment waruñu ko arrêté teguwut ci yoon nañu jéem a def social. Assane dégg lay gë. xam nga yaa ngi dégg. waaw day jéem a tubaabe léegi tous di bois yaa ngi dégg doo wax loolu. danga war a wax danga war a poser question ne waaw lu xew ba tax lii am. Hmm. ñu jox la ay réponse tontu la. parce que gis nga li Omar wax sànq mooy li ne am réew mënoo ko yor ñu naan dañuy joxe poste yeeg yii ci ay yërmandeeg yooyu déedéet dañu am ay critères yu ñu teg ne lii la ñuy joxe poste yi. société bu organisée noonu la noonu lay doxee. Hmm. lii nga xam man dama jàpp ni li ñu état bi di woo li tax ñenn ñi jàpp ni dafa metti maanaam fi ñu la war a jóge jëlee la. mais gis nga bés bu ñu tegoo ci li nga xam ni moom lañ ñuy woo. Hmm. ma jigéen at. waaw ah, loolu du yomb de. at. Hmm. Ah, réew mi soppeeku ba nga jaaxle. gisoo état bi séddee. wóor na yàlla front yi dafa bari dana yomb front yi dafa bari. non non ban séddee amul fenn fu ñuy séddee. gis nga lii ñuy woote mënoon ne ci njub ba noppi naan dangay ngay looy séddee. pression yooyu. mais nguur xam na Macky Sall bi muy ñëw. dafa bëggoon teg affaire yi ci yoon de ba ci biir Abdoulaye Wade bëggoon teg mooy mettre de telle sorte. waaw boobu nag il faut gérer ko xam nga pression bi yëpp laa la rombut un an nit ñi bu ñu xamee ni caaxaanu billahi ñoom ñëpp dañuy rangé wu mais gis nga bés bu pression bi dina am pour delloo la ginnaaw léegi nag bés boo delloo ginnaaw ne garaaw taxal ma bàyyi lii hmm. na dugg nga fa ñëpp duggoon dootoo réussir yow la nga bëggoon a def boo neen moo taxal ma bàyyi lii après dinaa ko dabuwaat déedéet jeex na xam nañ ni ba nga séddee nga léegi nag foofu la ñuy jaar ñeneen ñi ñëw yeneen a ngi ñëw am na ñoo xamante ni bi tey ñii nag suñu borom da na may benn mbir boo xamante ni bi mayu ko ñu bari maanaam ñi askan wi ñoo jóg ni leen lii lañ bëgg mu leer leen comprendre kenn mënta réclamer ne man maa leen defal lii lu dut askan wi amul askan wi rek moo mën a taxaw ne man maa def lii askan wi nag euh, du lu ñuy làmb di ko daj wala lu ñuy joxañ parce que man mënu ma ne man maa représenté askan wi askan mii mënu koo wax keneen mënu ko askan wi mooy li ñu bokk ñoom ñoo taxaw ne leen lii lañ bëgg mais amul benn nit bu mën a taxaw réclamer ne man mii maa leen defal lii maa leen fal amut loolu nag mooy li nga xamante ni bii tey mooy li am solo donc li ñu am Ablaye laa amu ko kii amu ko woon keneen amu ko woon parce que sax. fàllu na yaa ngi Ablaye Wade cinq ans mi mu liggéey. Sénégal yëpp dañ ko bëggoon nit ñi dañ ko bëggoon. mais dama ne dama ne mais Ablaye Wade dañ ko bëggoon mais amutoon Ablaye Wade tey amutoon li Ousmane Sonko am. loolu moom dafa leer Abdoulaye Wade bu ñu joxoñoon Ousmane Ngom kenn du ko voteel bu ne woon voteel leen kee kenn du ko voteel moom la gars yi waxoon mais bu joxoñoon keneen kenn du voteel kooku waaw donc nañu xam ne nag lii état bi tey mën na génne Sénégal ci kii mu nekk ci jafe-jafe mu nekk mm-hmm. il suffit que problème yi yii du ay problème ñi ñuy foqar ci yenn yi ci seen loxo ñoom ñoo am problème il faut que peuple bi nekk derrière nguur gi jàppale ko puus ko ci li nga xamante ne bi mooy yii mu bëgg a lijjanti ngir mu mën koo lijjanti il faut askan woowu nga xam ne ñoo ko voteel protéger yëf yi nekk ci ginnaawam nga xam ne nguur gi dogal bu mu jël dina yëg ni askan waa ngi ci ginnaawam inchallah laa bu boobaa problème du am gars yi nga xam ne ñoom lañ jàkkaar loolu ñu doon jéem a teg pression dinañu reculer ranger wu ci rang yi réew mi dox ci kattan borom dinañ suivre jusqu'au bout dinañ suivre askan wi askan wi attention de askan kaay ma wax la leen eh. eh. hmm. askan wi ñoo suivre ba teg yi gars yi tegoon yépp askan wi tegg ko askan wi ñoo suivre ba impose président Macky Sall ne ko lii mooy lii ne bi mu demee ba xam lii mu la mooy lii ne far force lii mooy ne hmm. dafa dëpp jéem a lijjanti boppam. d'accord même askan woowu nag mën naa jàkkaarloog bépp lobby bu nekk ci réew mi. nekk derrière ñi nga xam ne ñoom lañ fal li ñu am din li ñu bëgg dinañ ko am ci kàttanu borom. incha allahu rabbi ñoom direction générale ba sax ñoom nañu daan ñu teg seen kéemtalaay kàttan ba port bi lépp lu fa nekk te jaarul yoon rek ñu tegaat ko ci raay yi ajaratu lii lañ leen indi woon tey ci <laughs> rek <laughs> dafa metti hmm. euh, di leen jox ah, dig daje suba ak jàmm ak yeneen yi actualité port dafa metti port daa metti si port <laughs> yow xamul réalité port metti na de man ma xam port. ah métti na def maa fa air. waaw hmm. ah la hmm? fa doon def nga si machine port la fa doon def. <laughs> maa ngi fii conserverie. ah ok ah mos naa dégg nga wax ko. Hmm? ayca ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom Alaaji Njóogu <laughs> ñu ngi lay jaajëfal ma jigéen li nga indi amatina solo mbir mi jàppal ma jàppale.